ko waxee woon nag euh, mi conseil des ministres décentralisé yooyu indi na xaajo ak seen ci opinion publique bi ñenn ñi gis ne campagne déguisée la pour Macky Sall wala bokk euh, yàq xaalis la ñenn ñi nag euh, yaakaar ni mun na am ay retombées économique ci dëkk ba nga xam ne fa lañ koy defee ñii di ay restaurateurs ak ay hôteliers nekk fële ci Kaolack ñoom daal rafetlu nañ mbir mi ndax gis nañ ni seen i affaire gën na cee dox ñu déglu ci jàngatu Daniel Diouf ak Mor conseil des ministres bi ñoo toxal ci biir région yi ñëpp yemuñu ci kàddu ak nguur gi waaye borom restaurant bi ak kii di yëngu ci mbirum aar nekk ci biir hôtel bëgg nañ ci. waaw gis nañ tuuti kay na. client yi bëri gis naa si yokkute bu baax a baax. depuis bi ñu waajee seen ñëw ba léegi. ci hôtel bi niki yeneen yi ci biir dëkk bi. yëpp a fees fii di organiser conseil des ministres semaine junne du lu ñuy ñaawlu. temps yi dañ xawoon a kii tuuti clients yi dañoo xawoon a daw mais deux jours yi fi nekk moom vraiment ça va moom on était au plein vraiment suñ mënoon di am genre activité yu mel nii tous les jours dinañu arranger. dañu am problème mu hébergement waaw suñuy clients dañuy ñëw sax du ñu am fu leen dugal. nga sant yàlla daal ñoom bi daal baax na fi. waaw ci sama gis-gis buñ ko sañoon moom toujours muy mel nii. gannaaw ba ñu ŋàññee gouvernement bi ci ndogal li mu jël ne day bëgg di toxal conseil des ministres ci région yi Serigne Mbaye Thiam mi yor kàddu nguur gi dellu na ba conseil de ministre bi jeexee ci ndëgërlaayu ndogal li le l'argent qui a été xaalis bi ñu dugal ci conseil des ministres njariñ la ci koom-koomu Ndar. xaalis bi ni jëfandikoo tamit tey fi nga xamante ni moom mooy Kaolack njëriñ la ndax boo seetlee hôtel bi ak lekkin wi lépp day daal di dellusiwaat ci askan wi kon yaakaaruma ni campagne électorale déguisée la mënoon nañ ko yaakaar bu fekkente ni ñun waxoon nañ ko balaa ñu tàmbali lii di campagne électorale bi wante ñun ñi ngi ko def ci campagne électorale. donte am na ñuy wéyal tuumaal yi waaye nguur gi fas yéenewul dakkal la woon ab diggé mu candidat Macky Sall ci campagne présidentielle ba